27 août 2002 finalu euh, coupe bi nga xam ne bii mooy finaalu arbitre yi deuxième édition la ñu nekk nii ci samedi bi moom lañ koy def fii nii ci stade Koungheul bi parrain bi nag moo di Madiamba Seck ko xam xam ko ci euh, moom mi nga xam ne moom mooy euh, maire ribo Escale trophée bi nag képp koo xam ne yaa jël trophée bi di nga am 500000 vainqueur bi moom dina am 300000 yéen nag xam naa ne yéen ñëpp yéen a ngi ci stade bi di seetaan. di leen eh, jaajëfal rek di leen wax ne rek tey nag final bi métti na trop trop trop fu mu nekk nii 0-0 la ba fu mu nekk nii dem nañu mi nii ci euh, loo bi ci yi mu nii yegg si ci moom mu nii mu nekk nii mu ngi commencé ci arbitre yi ah. moom lay présenté wu ci arbitre yi. paree nag muy soog dem ci joueurs yi lii rafet na fu mu nekk nii ñoom ñu ngi présenté wu fu mu nekk nii stade Koungheul képp ko gis lii xam ne lu rafet la ñoom ñu ngi présenté wu ak arbitre yi fu mu nekk nii bu ñu présenté wu ak arbitre pare soog a présenté wu nag ak joueurs yi lii rafet na rafet na rafet na moom nag mu ngi ànd ak délégation mi présenté wu moom mi nga xam ne moom mooy ma jàmba mi nga xam ne moom lañ parrainé final bi mu ngi dem ci kii di présenté wu moom ak délégation bi lii rafet na lii rafet na lii rafet na présentation bi rafet na ñoom ñu ngi présenté wu équipe yi ñoom ñëpp ñu ngi présenté wu moom ak mu àndal moom mi nga xam ne moom moom Madiamba Seck maire de Ribot Escale kon asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp yéen waa presse locale bi nekk fii ci Koungheul di sant yàlla sunu borom bu baax ci teew fii ndax teewoon nañ fi daaw kon biñ fi teewaatee ren rek ñu gën a dolli sant sunu borom ndax am na ñu fekkewoon daaw da fekkewuñ ret comme yàlla dogal na ko bii nag nekk deuxième édition ma ciy sant yàlla bu baax ci ñi nga xam ne bañ ko créé daaw ñi ñu bëri nañ mais dañoo sàkkoon pour ci man ne naa leen jëlal bis bi ñu jël continuer di leen ko jëlal da joxoon naa leen kàddu googu moo tax ren it biñ ko waajalee rek dama leen amul benn problème danañ ko jël da bàyyi nañ xel it liñ ci defoon rek ñu ñaan yàlla suñu borom may ñu fekkee ba ñu defaat muy bis bu am solo dama ñi ma ko séqati dañoo nekk ay gor yàlla suñu borom mooy boole ay doomu aadama muy Amady Fafam na mi ak ñoom Pape Biram yàlla suñu borom moo ñu boole ba nga xam ne man lépp lu ñu xew la rek buñ ma ko waxee danaa ci teew ak lépp lu ma ci man dinaa ko ci def di sant bi nga xam ne yéen tey bis bi wër na ma ne foo jaar ci Sénégal ak ba bitim daañ ko gis da yéen a tax muy firi am fa muy mataar yow bàyyi ñu kenn presse bi yëpp dañu sant yàlla sunu borom beneen bi it maa ngi sant sunu naataango yi nga xam ne teew nañ fi muy maire Sali wax dëgg sonn na temps jafe na trop waaye dafa jógee Dakar demul këram demul fen maa ngi moom mu ma fekk auberge kër Sëñ Jibel di sant Moussa Seck di sant Alioune Badar li ndax mu ngi ñëw ba ci Mot Seck di sant absent yi ak samay doomi baay muy Koungheul muy Taay bàyyuñu kenn ribo itam sant yàlla ba mu bëri parce que dañ fi amoon ab bis tey mais toutes les conseils municipaux ñi ngi fi da li ëpp yëpp ñëw nañ conn moo leen bis bi nga xamne ne nañu ambekte bubah, ko bàyyi ñu kenn am mbégte bu baax mam gor saw ñepp gis nañ leen wax dëgg yalla kontaan nañ bam bari loolu lañ amon liñ leen ciy jàllale naataango yi ñu and ñepp kontaan nañ ci bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah fon ci départ rek ba dara xewagul dañu nekk bu dara waru ñe wante parce que na man dama nekk nit ko xamne ñaanuma yalla soppeku tank ma ngi dox ci kaw suuf man nima melone doomam faloogul meer noonu laa mel tey leneen lu ëpp meer su ma ko yoree ñi ma doon àndal damay ñaan yàlla continuer di ànd ak ñoom ba illaayo mi diini tànk maa ngi koy man bëgguma soppeeku bëgguma beew bëgguma mel nenn lu mu melutoon parce que ba tànk am na solo nag parce que ñëpp ñu ngi koy bëgg mais day dëñ am na sunu naataango yu ko takkoon tey takkatuñ ko tey ñu ngi ko takk ñaan nañ yàlla ci sunu dund bokkuma ci ñuy ñaan yàlla naa naa deeaale ba tànk kon bis dana ñëw it du ma ko yoroti de nii ma nekkoon ak ñoom dañ koy continuer di ko nekkee bi quand sant yalla biñ koy tàmbali nekkuñ maire mais yàlla jox nañu yéene ñu nekk maire tey boobu yokkute la xel ko ak ñoom ak leneen luñ am loolu lañ ciy wax dal ci Sukura bu Koungheul sant ñëpp gërëm ñëpp loolu itam gën a ñaax dolli rek muy autorités yi sax mën nañ leen ciy jiital waaye waa Koungheul yëpp man laay ñaax rek Kaya na nag man dama nekk sportif da yàgg ci lool parce que depuis 88 dafa nekk ci sama xol mais comme Koungheul bu xewlee ñëpp jog kontaan damay ñaax autorités yi comme ni nga ko waxee ñi dugal seen loxo ci Koungheul Bambouk phase nationale nawetaan yëpp ñu jàppale sunu xale yi ñuy dem parce que nag déggoon naa Omar Pène mu wax ne football. nena na championnat bi bu baxut équipe nationale du dox xayna nak yalla may nañu ñu jël coupe d'Afrique mais war nañ xol sun xalé yi ndax ko dem sa boo xoolee tey ku melni Sadio Mané Bambali mu ngi fay def lu am solo muy sédju ñi safo ko ñun wa Sénégal safo da xalé yi tay buñ leen jappalé war nañ mëna mel comme Sadio Mané parce que xalé jogé na fi muy Sori Kayta mu ngi Maroc wala mu nekk France ñu mel nonu ñu bari ñi ngi fi ba garab gi doon suyee barki dem war na mëna am suyeer yi dem phase nationale yi dem équipe nationale Sénégal kon damay gëna ñaax autorité ak toute la waa Koungheul ñu gën a dugal seen loxo ci sport bi jàppale sun phase nationale jàppale Koungheul Bambuk jàppale sunu nawetaani mu jëm kanam te am naa ci yaakaar bu baax nag de soppale ko dina war a am rawatina génération yi nga xam ne ñëw nañ ci mairie yi wax dëgg ñu ngi commencé am ay jéego da yaakaar naa ne soppale ko dana am bu baax a baax a baax muy ñi ma yaakaar naa war nañ gën a jëmmal seen espoir ba ci man mii tey bàyyi naa xel feeg le premier septembre danañ commencé football da bëgg naa feeg fin septembre football jeex riba ba nga xam ne balaa xale yee jàngi def seen i final da loolu yëpp xam naa ne na la Koungheul di amee yéene boobu na la ko yida di amee na la ko misère di amee fu ne di ko amee bu yàggee danañ mën a dem ñi ñooñu ñëpp ñi xam ne phase nationale wala équipe buy génn ci département Koungheul Koungheul moomu kenn moomu ko ñi ñëpp ñoo koy jëm kanam Koungheul jëm loolu la amoon lu ma leen ci ñaax ñoom itam wasalaamaaleykum Thank you. alaikum euh, la presse alaikum la population assalamu alaikum la population sportive donc euh, Matar euh, la question mooy suñu diggante la Soukran avec monsieur le maire Madame donc nous avec monsieur le maire Madiama Seck diggante bi depuis le la nous avons en ce moment n'était pas maire donc nous ñëw ñu gis nous ñu soumettre ko programme nous avec fierté Nous ko ko que mu soit alpha saa yu ngeen di organiser man je suis disponible nekk seen parrain naturel donc xam nga loolu ki la ko wax wàccal na la lépp ren aussi avant ñuy démarrer ba ASC di wax ñu ne kañ ngeen di demare man na leen man du ma organisateur boo xam ne ni damay organiser di laajte datu final ci laa wooyee monsieur le maire ma ko monsieur le maire bëgg nañ démarrer suñu tournoi bu ñu defoon daaw bi mu ne ma li ma leen waxoon laa leen di waxaat li ma defoon daaw su ma ko yokkul du ma ci wàññi dara te mu wax li mu wax loolu la def c' est en ce moment la ñu les ASC ñu waxtaan ak ñoom après ma ne ko euh, datu finale bi mu ne ma man bëgg naa date bi ngeen jàpp mois d' weekend gëna mu a mujj euh, bu mujj ci mois d' donc mooy mooy weekend béni donc cela veut dire que ñun avant ñuy démarrer xamoon nañ ci ñu datu finale ci lañ woyé les ASC ñu wax leen lu ñu leen di wax ñu wax leen mise yi wax leen datu finale donc ci lolu lañu démarrer yalla def na tay le weekend bu mujj def nañ ci ñu finale tay donc il a accompli sa mission donc si ñun ak mom c'est à vie. C'est à vie. Nous avons fait un tournoi de mise en jambe. Mise en jambe, moi, lorsque nous avons fait un de jot, au moins, jury, nous avons tout ici 5 ans. Si vous voulez ce tournoi, nous avons fait de telle sorte que, dès que jour, Sibir Kungel, sa ASC, vous qualifiez, vous avez fait un tournoi de ASC, vous avez football. Donc, c'est pour permettre à tous les joueurs d'avoir de compétition avant de démarrer. Nous avons fait un tournoi de jour. Donc, si vous êtes joueur ASC, ASC Daara ji bu qualifié wu bu la neexee nga dem AC Gombe AC Gombe bu qualifié nga football foofu bo xolé si équipe bu Gombe bi par exemple je donne un exemple Bokar il est de l'AC xay gi bokul mom mu ñëw mu ngi fubal Gombe donc ñu kenn c'est pour les joueurs ñu tuddee ko tournoi de mise en jambe ñu ubbil ko ñep organiser ko de telle sorte ko du am ciow du am dara motax ñu ne ñun bu ñuy jouer AC bu nek ci 8 AC da ngay déposer sa liste 25 jours boo déposer déposé bu ñu footballer. amul réserve amul réclamation ku dóor si terrain bi nga dem nga sangu ji ku gagné ñu félicité la noonu lañu ñu demee ba instant bi ni amul benn coow sant yàlla